waaw tey de yàlla dajewoon nañu samedi passé sax heure bi ñu ngoon waaw tey samedi heure bi waat mu ngi sa sa kër ci loo xam ne gan gu la yàlla may la mu dem liir nga koy nga tudd ko tudd ko Serigne Saliou Balla loo yëg waaw am mbégte rek am mbégte loolu wax dëgg yàlla euh, di ci santaat yàlla ba yàlla dogal mu ñëw àdduna bisu gàmm ba léegi génn ñu ci gàmm ndax tey Njaasaan ñoo xewle Kaolack ñoo xewle Medina Baye di Gàmbi loolu sant yàlla la mu jël tur bi nag duppee ko Serigne Saliou Mbacké eh, mu doon digg yàlla ma ciy sant yàlla baaxal daal loo xam ne eh, sant yàlla war na ma lu tax sant yàlla war na ma ci lépp lu mu munti doon ci àdduna ci bëgg Serigne Touba ci bëgg samay nit bëgg suma Serigne Serigne Bassirou Bara moo tax sant yàlla war na. Ah, biñ sa soxna am na doom yaakaar naa si guddi gàmmu gi la ñu ne la góor la maanaam ban sant baa nga njëkk am. waaw mbégte njëkk am bisu Seydina Muhammad mu judd loolu mbégte mbégte bu mu judd bis bu màgg bis bu sell bis bu yiw bis bu lislaam di ndam mooy ñaari yoon suma Mouhamed bu njëkk ba ak ci suma Serigne Saliou waaw kon loolu mbégte la ñu ñëw ci kër gi gis nit ñëpp ñëw animateur rajo yi mbër yi kenn desul jàngkat yi gis naa fi sax ñu fi yëkkati jàngu tijaan yu neex sànq parce que soxna buri di jaayu mu mel ni kon baax la ab lëkkale daa dox ci digganteem ak kër yi diine yëpp waaw man su xarit yëpp mooy li la waxoon rek man mu laa boo ne Mbaye Diop na tijaan boo ne Abdou Aziz Ala Ndiaye na tijaan boo ne Baye na tijaan boo ne Talla Meng na Laayeen nga ne Moudou Fall na tijaan nga am su ma nit spécial ku mel ni Diagne tey su ma ñu bëri bëri kon bëri ay xarit ay ay xaadar ay Cheikh na Cheikh Sadibou xaadim ko ci mel ni moom kon ñoom ñëpp sumay xarit lañ moom ñëpp laa bokk bokk nekkal bokk àndandoo parce que yàlla moo ma boole ak ñoom ma nangu lool ñoom ñëpp sumay xarit lañ. suñ mbokku chrétien yi. am naa njaagu Serigne Touba boo xam ne moom mooy peintre sumay kër waaw ku ci mel ni su ma xarit suma peintre mais am naa njaagu Serigne Touba am na njaagul mais Serigne Touba rek lay bëggee mais bu bi ñu ñëwee ci kër gi tamit dañu dégg sa papa mu gërëm sa soxna. yaa ngi dégg yegg ba ci kon ne ko sax loo muñul loo muñul na ko gën a yokk ndax li nga nekke xam naa ko du lu yomb hmm. parce Omar maanaam maanaam baatu dof sax la utiliser foofu mm. nee ko na gën a muñal sa dof bi mm. loolu la loolu sa papa wax sa soxna dëgg la waaw noonu la xam nga boo yoree xale mu mu jaar fa mm. moom li may def maanaam def na ko dañuy xam ne boo nekkee ndaw sa deret day tàng lu bëri doo ko mën a tollare moo tax muy yedd doomam di ñaaxaat doomam gisoo daa yëkkati jaw soxnam sama soxna la yëkkati suufal me loolu mooy doomu aadama loolu moo la yoon ne tey man suma papa maa ngi koy sant di ko gërëm xëy na tey ni ma ko gisoon muy nekkee rek laay nekkee waat kon loolu ab sant yàlla la sa nga xewlu say waajur ñëw ñu fekkee ko nag rawatina ñu fekkee ko loolu lu waay am moo dàq milliard loolu dañ ciy sant yàlla di ñaan sama yaay papa sama yaay ñu gudd fan wér gi yaram bu wéree wér ñaana soxna si yàlla dafa ko jàmm maire bi tamit ci laaj bu ma ko laaj nee na soxna si ku neex a dëkkal la goro bu neex a dëkkal doom la ko de maanaam daal doomam la sa soxna tamit wax ne maire bi li muy wax ak sa yaay sax du ko wax yaayam ji ko jur waaw moom moo fay moom moomu yàlla dogal tey mu njëkk fa sëy si maanaam suma mag maa ko njax sax njëkkati am soxna waaye benn lañ bis bis boobu dafa tax samedi maa tax samedi mu tax dimanche moo soxna Awa ñoom mu nekk lépp lu ñu waxtaan rek maire moom lay waxtaan daf ko doom ñoom nag kër gi ñëpp boo ko ndey boo ko bàyyi mais rawatina moom mais yàlla moo ko boole ak si di ñaan yàlla yàlla gën leen a jubale jubale kër gi jubale famille bi ak képp ko am famille waaw suma yaay moom ko ñaan rek ñoom kenn ku nekk moom bu royee suma yaay dina fa jur doom bu raw Balla Gaye ku fa saxee li sama yaay def ci àdduna peut-être yaa ngi ñaan yàlla nag xëy na mën na bañ a mën leen ndax suñu yaay dañoo sëy dañoo muñ mais bu ko fa muñee dina jur doom joo xamante ne moo raw jëkkëram am na solo mais tamit am na loo xam ne parce que ñun làmb daf ñu intéressé tout le temps duñ fi ñëw ba dem parce que gis nañ nga am ngénte géejawaay ay champion ngi fi parce que Lac de Guiers ci la bokk guy gi ci la bokk te gisuñu leen fii ci xew bi loolu looñ ci mën a expliquer non Lac de Guiers démb la ñu ngi jokkoo taay jën sax démb lañu jokkoo moom it ndaw waaw moom samay xar lañ dañoo am empêchement ma envoyé message wax man ma ne ko waaw kontaan naa parce que ñun ñëpp wax naa kon donc vraiment loolu du dara gis nga tey tàq la dëgg bi gisoo ma fa. waaw ah, ñëw te boobu ñu ngi doon jox ko téléphone di tooñante waaw kon loolu lépp jàmm la géej waaye ñëpp jàmm la. la est-ce que du linde bee ko jàpp moo tax. waaw <laughs> ah, mu ngi seetu de. ba tey nii. mu ngi seetu nag. waaw hmm. ah, mu ngi seetu. kon daal moom ba tey ñib seegu. pareegul. fan lay linde miel sax dëgg est-ce que mbuur mbuur yaakaar naa muy mbuur <laughs> mais géejawaay dañ fay gis koo xam ne nii fu ñu waxee mu ne Balla Gaye sama mag Balla sama rak sama nangam sama nangam. liiru jaan monument la wala. mooy monument géejawaay. ah lii de waxul loolu. non xam nga kii mooy li may wax di waxaat rek suma mag la suma xarit la. liiru waaw mag la suma xarit la moo ma yar. boo Moussa ñëw école bi nekk xale bu ndaw mu gars yi di ma tooñ naan ay téen affaire yi daal ne bàyyi leen booy bi ngeen tooñ mu jël taf ma ci wetam wallahi azim yàlla rek moo tax may wax mu nekk nit ku baax sonn ci man nee nañ xale boo koy lebal lebal ko lu baax ay moom dafa ma lebal lu baax bu ma lebal woon lu baax du toog fii di ko wax loolu di ko tudd parce que xam na fu ma àgg ci moom ni ma ko bëggee nu ma raw la bëggee kon donc maa ngi koy ñaanal jàmm ñaan ma ko salaam lu ma xew la ma fàtte ay ni sax moom mooy woon Amar fàtte nga diw ak diw ak diw diw kon loolu dafa am solo lépp li nga xam ne moo koy def rek lu baax rek ci géejawaay ñun xam nañ ko. mais Balla li nga wax neex na trop am na solo mais man da nga ma fi waxoon maag Lamine ma lee ne yow comme am ak wulli wulli nga faral. wulli moom yaa ñu ko waxoon de. wulli moom ci àdduna. waaw musul am combat. wulli ma sa am combat. waaw luy loolu. wulli wulli bëreeg Sa Thiès fii bu métti Demba Diop nga ne ma sa am combat. wulli musul am géejawaay fii ndax. bu suufee am waaw ah, te wuli mu ngi doon am combat ñëw na fi nag sànq maa ngi koy sant ko gërëm suma xarit la mais am na komba boo xamante ne ah ba bis ba man maa indi kii da nga ñëw Gambie loolu safuta kii dina xew la may toog fii xel xalaatu ko sax xel xalaatu ko kon faralatoo wuli xanaa musuma faral wuli musuma naa ngaa weddi say wax musuma faral wuli génnee ko lu ma wax mun nga ko génn a gis nga ma xamal la benn affaire Babacar yow lii ngeen def affaire jaxase ngeen def ban jaxase moo ko waxoon saytaana nga yow yow saytaana nga yow yaay nijaayu saytaana yi non mooy papaay saytaane waaye yow yaay ndax soo taxawee di wax Balla Gaye dafa taxaw ne la wuli la faral naa fekk nga Balla Gaye du genre boobu kii nitu àjjana la dina lakk ñu baree bari bari bari bari barki sëriñ Bamba barki sëriñ Baara Mbàkke kii dina lakk ñu baree bari bari bari xolam moo rafet yàlla xol lay fay kii su may wax ci moom damay feer damay am mbégte sama wala feer def ci tabax xawma feer daal ndax damay am mbégte ndax xamul tax kii du dara kii daf leen di wax kii du fàtte fàttewul de barki sëriñ Fallou Mbacké ndax lii muy wax nii lu yàgg la te fàttewul démb kii li ma jaral moo bari kii ku ma bëgg a jot na ko laal barki sëriñ Bamba Mbàkke bi man nëbbatuma làqatuma kii man lu ne dégg naa ko ndax moom lu ne am naa ko ndax moom waaw doo ma déglu ndax jaral na ma ko dafa am lu am ci kër gi parce que man dama dugg léegi ci néegu Sathiès maag Lamine Sathiès moom Lamine kee la recevoir euh, nu mu tuddati wulli mook mook nijaayam mook nijaayi Balla non ñoo ko recevoir nijaayam ne da koy ngem non ñoo ko wax non non loolu nga wax waxoo dëgg waxoo dëgg c'est pas. tax nga maa ko fekkee maa ko fekkee woo na ma bi mu duggee foofu di bëgg da gis nga ma xam ñoo ngi koy gërëm di ko sant li mu def nice na ñëw na lii mu def yëpp xam naa ko dafa ma bëgg a jaxaseeg. même Saliou Khoulé nee na moom la faral bu si defee. Saliou su ko neexee mu fa Saliou Khoulé man su ma ko jàppee ngir yàlla ak Balla Gaye dëgg tax ak Serigne Touba voilà te def laa bëgg te bi waajuram bi làqoo damaa jóge fii dem ba fa mu dëkk jaale ji ko ndax kii ndax xamul tax dafa ñëw fii def geste bu rafet di tudd Balla Gaye di wax ci Balla Gaye lu baax man ku bëgg Balla Gaye ma bëgg la ku ko bañ ma yow léegi yow am nga problème parce que di nga wulli moom wulli moom sa sa nijaay ci làmmiñam mu ne wulli lay mu daan liiru ja yow daal bëgg a yëngal sama xam naa ne yëngal nga daal combat bi daal may indi liiru incha allah bi man parce que Lamine waxoon na ma ko Gambie Lamine noonu na ma combat bi dóor mu daanu dina ci am ah ba simila àggaguñ ci loolu dóor mu daanu yow tiitu amoo ci tiit. laaj nga laaj nga ko ñaata ne lu mu sa dóor mu daanu. Ah, looloo ñaata lim nga dóor mu daanu yow. ñett at. Cobra Cobra dimbali ma. maa ko génne làmb ci Vandam maa la surumle Vandam maa leen génne làmb gis nga ma xamal nee naa la ku ma yab tey nga ma yab bi ma defee accident bi waaye sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax sant yàlla bu baax ndax soo ànd ak ay nit ñu ñàkk seen bakkan loo am santal man nag fi ma jëm ragaluma faa. mais beneen bi ci des mooy combat li ci laxasu daa bëri ndax gis naa Xaadim Gadiaga daan la te te wulli dama koo dégg muy défendre Modou Lo léegi. faral ñi dëkk parcelle yëpp ñoo xam. ba ci Modou Lo Modou Lo moo xam moom la faral dégg naa ko ndax keroog wulli di ko tàgg di ko gërëm ku ko neex na ko faral amul problème non problème man fi ma jëm ñeme naa ko. mais bu ko Xaadim nga jël xekkale nekk sama ginnaaw. Balla Gaye 2 doomu Double Less magi saa kees séeri buri bàccali bàyyi sëñ Saliou liiru jaan mais wulli dafa am lu mu wax